asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñu ngi nuyu kilifa yi fi teew di jiital ci nuyoo bi Cheikh Sidil Muxtaar ñaan sunu borom mu yàggal ko fi te wéral ko di nuyu sunu kilifa yi fi nekk sëriñ bu sa imaam di kilifa ak daayira Muxaddamatul Xidma ak sëriñ Fàllu bu sa imaam di imaamu Touba Pontevico ci di nuyu euh, sëriñ Fàllu Mbakke di nuyu sëriñ euh, Moustapha Lo ak sëriñ Fàllu Mbakke mi nga xam ne Eh, jëwriñ la moom it ci Touba Veneto suñ Moustapha Lo mi tamit bokk ci jëwriñ yi Touba Veneto samp fédération bi bokk ci ñi samp fédération bi eh, jataay bi kon présentation boobu ma def eh, dafay duggaale ci jëwriñ yi fi nekk ñu mel ne sëriñ Pape Diouf ñoom sëriñ Bamba Touré sëriñ Mokhtar Niang ak mbooleem jëwriñ yi nga xam ne wuutu nañ fi mbooleem taalibé sëriñ Touba yi nekk Touba Veneto loolu nag mooy tax ñu xam ne li waral jataay bi mooy bii mooy ñetteelu liggéey xaw ma ñeenteelu liggéey yoo xam ne euh, daaira sëriñ Touba bi nekk Touba Veneto ñi ngi koy ànd ak daaira Muxaddamatul Xidma bi sëriñ Sidi Muxtaar dénk jumaa ji ci bu ñu gisee liggéey yi nga xam ne euh, yu am doole la yoo xam ne dafay sàkk dañuy sàkku taalibe yi ngir ñu tabbi ci ci ndigalul sëriñ bi yaakaar naa bii mooy ñeenteel bi ndax indi nañ fi ay liquide yoo xam ne lu man ñetti at mooy nettoyé jumaa ji indi nañ fi ay machine yoo xam ne machines yu nettoyé la indi nañ fi tamit matériel audiovisuel boo xam ne moo ci mujj muy saytu lépp luy tisaare njàngalem diine mi ñu def ci jumaa ji moo xam xutba yi la moo xam waxtaan diine yi ñu def ci koor gi ak loo xam ne moo doon yokk son bi nga xam ne dafay leeral biir jumaa ji ci bu ñuy julli ba mooy leeral fi dend ak minbar bi machine bii nag euh, indi tey ji daayira bi moo ko sàkk woon ci ñoom ndax gis nañ ne lu lu munta ñàkk la ndax tapis yi nga xam ne mooy tapis jumaa ji dafay tilim buñ ko daa fóot dañuy yéeg ci kaw di ko boros bi nga xamee ne nag gis nañ ne loolu am na machine yi tubaab yi liggéey yu xereñ yu ko man ñu envoyé leen ko ñoom ci seen bopp nag ñu def ay gëstu ba xam ne machine bi am na mu toll ci valeur u 40 000 euros daanaka ñu indi ko tey jii ba monté ko nga xam ne saa su tapis jumaa ji tilimatee machine boobu moo koy fóot yaakaar naa loolu mooy li ñu fi dajale. noonu ko suñu blaat bu soo waxee rek xëy na ndigal liñ ñu waxloo moo tax ñu di fi yëkkati kàddu waaye jotaay bi waruñ fa yëkkati kàddu ngir kilifa yi fi nekk waaye li ñu ci laaj mën naa am eh, liggéey bi ñu ci Sëñ liggéeyloo ci njëlbeen gi ba tey ñu topp ko ak loolu muy laaj ci machine bi mën na am foofu rek la ñuy jëm te mooy machine boo xam ni. ñoom bi ñu bi ko jumaa ji soxlaa am na ñu bari ñoo xam ne ñu ngi ci li ñu ngi ci réew mi di fóot ay tapis ba ndakaaru waaye xamuñ sax ni machine bi am na ni ñu fóotee tapis rek di ko tiim di ko brosse wala ñu koy brosser lance moom lañuy def waaye bi ñu gëstoo ba xam ne am na ñuy liggéey ci àdduna bi machine yoo xamante ni mën naa fóot tapis yi ni ko war a fóote ci fóotin wi am fuñ ko njëkkoon a gis turki lañ ko njëkkoon a gis sax mujj gi ñu gis boo xam ne moo ko gën mooy bi yàlla dogal ñu indi ko fii tey ñu gis ko Italie te ka ko liggéey euh, nekk Espagne ñoom tubaab yi ñoo ñu ko jaay euh, def ci ndimbal ndax loolaa tax ma nañ jege si sax ndax bi ñu demee ba ci biir nii Serigne Touba baaxoo wane boppam ci ay liggéey. Euh, lañ ñu joxe machine bi daanaka dañ dañoo mel ni ku ci amul dara mujj gi ñoo xam ne ginnaaw du lu ñuy liggéey lu ñuy liggéeyee di ci xaalis te ñoom kuy liggéey rek lañ koy jaay ñu ne kon ñoom tam danañ ci def seen dara ba wàññiwaat ko ñoom ñi ñoo ñu ko jaay kii mooy technicien bi koy monter si nga xam ne loolu rek ko fi indi pour mu mën a monter machine bi bi man nga ñu dikkal ci aspect technique yi machine bi hmm. kon benen technicien moy seigne Ibrahima genn mi nga xamne mom lañu fekk itam ngir mu jang ko ba nga xamanteni luñ ci soxla fi bañ jéggani wat machine mi nak tam li tax mu am solo lol moy machine bi ñu mujj liggéey mom mom lañuy wax ni euh, ci bo xamne day boole ñetti phase yi nga xamne machine yi raxas tapi da na ko def da fay feug tëb bi yeleb ko ba li ci nek ci souf ak ci poussière mu yëlëb ko boole ko di ko aspiré phase battage bi te loolu bu xasee am rek day daal di yéwénal lu bari ndax ma tapis yi dafa bindoo noo nit loo am am kàttan loo xereñ xereñ am na suuf si bi nu muy ci biir loo koy génne dootul yomb machine nag bu système industriel yi rek moo ko génne moo muy muy machine bu révolutionnaire battage boobu nag bu génnee suuf si ak bi génne waale ne allergènes yi ak bactéries yi ak microbes yu bari Euh, ba ba tëb bi oyof yooyaat nga xam ne day euh, ànd ci karaw yi dem ba ci suuf bi mu génnee am deuxième phase boo xamante ni yëpp da machine bi da koo boole muy ñetti phase mooy lavage bi ay brosse da koy tiim di ko di ko raxas di wàcc saabu ak ndox ba euh, mboolem tëb bi yegg muy daw ci kaw tapi bi ba ci kaw rouleau bi ba ba ba ba loola loola loola mat bu ko defee buy génn ci ginnaaw da koy enrouler ba ni ñuy lemee tapis noonu comme niñ ko niñ ko niñ ko lemee nii rek bi muy dugg ñu dugal ko ci wet gi ba tap bi yëpp dugg ci guddaay bi mu weñ ko comme ni machine à laver yi di weñee nga xam ne day fenn ba nga xamante ni loo boo ko tegee eh, lu mu gàtt gàtt rek mën a wax loolu yëpp nag procédé boobu yëpp da koy def en six minutes eh, te eh, bu dee xeetu tapis yi nga xamante ni ay 4 mètres la sur 1 mètre 20 mën na cee fóotundoo ñaar nga xam ne bu fekkee yaa ngi liggéey huit heures de temps ci bis bi mën ngaa fóot ba ay quatre-vingts tapis wala lu ko ëpp loola nag daa yombul ci eh, eh, fii mu toll réew mi yëgaguñ fi kenn ku yor machine bu ni mel ndax seet nañ ko Dakar ñoom eh, ak réew mi yëpp gisuñu ku xam ku ñi ko xam sax bëriñu waxuma ak di ko di ko am loola nag mooy baax li ñu baax xamee sëriñ bi rek lu baax lu ne ak fu mu mën a baaxee moom moom moom moo koy njëkk am mo koy gën lay itam loola mom moy moy moy moy ci teunk euh, wetuk euh, machine bi rek ak yi ci aju yu bari ta tapi xam ngeen ne bu ci poussière bi yagge ta mënuñ ko dindi day def pat mu yagge mu gous am xet ak euh, ferñent yoy mu andal muy microbe yek yoy ba yagge day indi am soj ak problème allergie yoy yep nak yalla mën na dogal yoy yep dana wàññiku baax a baax ngir jëmmi Sëñ tuam nga xam ne moo yéwénal liggéey bi te ñi ko sóobu woon seeq ko xam nañu ne euh, daje nañ cee ndimbalul Sëriñ Tuubaa bu baax a baax waaw leen di yëkkati ab nuyoo boo xam ne ñoo ngi ko jële ci kàddu kilifa yi fi teew muy Serigne Fadilou Mbacke imam bi nekk pont vigo te jiite kër sëriñ Touba gi nekk ca Brescia di jëwriñ ca taalibe yi nekk Veneto ak sëriñ Fàllu Mbàkke bu sëriñ Cheikh ata bu maam Mor Jaara di ay jëwriñ ñoom it nekk ca Veneto di yëkkati ab nuyoo boo xam ne mi ngi jóge ci fédération Veneto ka nekk ca bopp ba di sëñ Cheikh Faye ak fukki jëwriñ yi nga xam ne ñoo seq daay bi ba tax ñu tudda leen ab fédération muy ay daayira yu dajaloo ba mat fukk boole seen bopp di am mbégte bu baax di fekke jataay bi ñun ñëpp di sant yàlla bu baax itam di sant Seyxul Xadiim bu baax ci bi mu nu mayee nu mottali lenn ci sunuy jëf yoo xam ne amoon nañ nisar def ko ndax ci jëmmi jamono jumaa ji am na ay itte sëriñ Abdou bi sa jaar na ci léegi waa ne li nu boole ak ñoom nag moo di sëriñ Mamor bu sëriñ Mourtada moo ànd ak Serigne Abdou bu Bousso aw yoon woo xam ne dafa ñëw Italie wër moom daayire yi yëpp bi mu agsee fi nun mu xamal nañu kat liggéeyu jumaa ji liggéeyu Serigne tuubaa la ba tax na lépp loo xam ne seen itte la na ngeen ci taxaw lu ngeen man ni la ko defee ci barab yu bari it ba tax na luñ fi def lu ne ñun ñee ñoom ñëpp lañ ko boole defal Italie gépp lañ ko boole defal bam nu ko waxee it am na fu ñu tàmbalee woon ca lañ ñu njëkkoon woon Serigne Laat ja jaar na ci léegi du jar ba ciy jaaraat moo indi jëf jii tey tey lii ab tàmbali la ci sunu yéene ci pas-pas yi nit ñi am ak bëgg a liggéeyal sëriñ bi ba tax na kon sëriñ Afe yow mi nga xam ne yaa jiite muxaddim muxaddamatul xidma ah ci kanamu bokku taalibe yi nga xam ne ñoo teew fii ak ñi ñu bàyyi gannaaw ñëpp ci ginnaaw bi ñi nga xamé né yëgal ngeen Serigne Sidi Muxtaar na ko liggéey bi aksi na ba nopi na ba ñëw yëgalit Serigne Muntaha mi nga xamné moy jëwriñ ji té daaw démon nañ fa yëgal ko ko yëgaloon ko Serigne Sidi Muxtaar it tolor ci tollu woon mu def ci ay ñaan ci wa fédération bi ñëpp ñoo ngi machine bi di tek ci sa loxo di tek ci sa loxo ndax ya fi tay Serigne muntaha yaa fi Serigne Cheikh euh, Serigne si Sidi Muxtaar yaa fi teewal Cheikh basiir bu Cheikh Abdoul Xaadir ndax Cheikh Basir yëgal nañ ko ko bi ñuy tàmbali barab bi moom ñëw na fi barab bii ñu ko defit moom ci boppam moo ko financé boppam kon mu wane ne lu ñor lu ko ñor la tey ñor googu mu ko ñor kat ni la ko ñor rek sëti Serigne Touba yi nga xam ne yàlla da leen a baaxee woon ñu jaar Italie yëg ne ñu ngi jëme si liggéey bu toll nii su ma ci tuddee ñenn rek waa kër Serigne Fallou yeeg ku mën a doon rek ba nga fa jaaree dagg nga carte daggal ko Serigne Fallou wala nga daggal ko Serigne Abdou Lahad wala ku mën a doon ci waa kër Serigne Touba ba noppi dagg carte sa sa bopp kon mooy wane na suñu liggéey bi kat noo ko tàmbali waa ma waaye nag ñoo ñëpp a ko bokk kon noo ngi ñaan ci Serigne bi nga sàkkul nu ñaan ci Serigne Sidi Mokhtar mu dëgëral sunuy pas-pas defal nu ak jàppandal ci wér ak jaamu yàlla defal nu jàppandal ci mën a am lu nuy liggéeyale sëriñ bi ba lépp loo xam ne ni yëg nañ ne ittewoo nañ ko nun nag yemalewuñ ko ci jumaa ji donc waaye lépp loo xam ne sëriñ bi ittewoo na ko bu boobaa bu buñ ko xasee dégg bala noo amati jàmm mu am ah, mbir la nag moo xam ne eh, ab tàmbali la rek waaye du yemuwaay kon ci gàttal ci turu ñëpp ñi nga xam ne ñoo bokk ci daayira euh, fédération Weynito bi damay bañ a lim jëwriñ yi di fàtte kenn waaye bu ma tuddee sëñ Cheikh Faye mu doy ñenn ci jëwriñ yi ji ngi fi sëriñ Moussa wax nañ ko léegi sëñ Matar ñaa ngi fi sëñ Ousseynou Diop ñoom a ngi fi ñu bari ci jataay bi ñu ngi fi kon lii day wane na rek lañ doon liggéey toolu àllarba bañ doon baykat noppi na dañ koy jébbale ndax nun liggéey bu nuy liggéey bu ne dañ koy sos ca la suñ maam ya doon liggéey rek mm-hmm. mooy tool yi ñu daan bay ngir jumaa ji mm-hmm. loola rek lañ fa nekke mm-hmm. leneen soxlawuñ ko ci xëy na lii day nekk na lu munta ñàkk rek ñu teewal ko ndax boo amee sa kilifa bu la santee ab liggéey ba nga noppi war nga koo jébbal loolu mooy jataay bii rek wax di ñaan Serigne di Mokhtar yàlla bàyyi ko fi wéral ko wéral mbooleem taalibe yëpp dolli taalibe yi nekk ci bitim réew yalla dëgëral len dole len lay seen beug beug du dara ku ci gis mo ko ci gis muy dox sax ma ngay xol la gën rafet ngir bu andi ko Touba waaw lolé moy seen pas-pas yalla na len ci yalla dimbali te jappal nako bu baax alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh ni ngi yëkkati kaddu ci touru Serigne Afia buso mi nga xamne moy mooy euh, président daayira Muxaddamatul Xidma di imam ci dumay Touba ni ko serigne bi waxe serigne Lo waxe itam mu teew fi ñetti jataay teewal fi Cheikh Sidil Muxtaar ci jataay bi teewal fi sëriñ Mouhamadul Muntaxa ak sëriñ Basiru waaye teew fi itam ci turu daayiratu Muxaddamatul Xidma bi nga xam ne moo ko jiite nuyu nag sëriñ Fàllu Mbàkke imaam ak sëriñ Fàllu Mbàkke moom sëriñ Cheikh Atta ni ngeen ko waxee léegi ak kilifa yi nga xam ne laal nañ ci liggéey bi yëpp te jaaroon foofu àndoon ko ak yéen di leen nuyu itam sëriñ Moussa di jaarale ci yow nuyoo bi ak Serigne Cheikh Faye mi ni nga ko waxee ak mboolem jëwriñ yi nga xam ne ñooy daayira Touba Veneto di yeesal nag ak cant bu baax goo xam ne cant gu rëy la goo xam ne mënees naa xam fi mu tàmbalee waaye mënees xam fi mu yem ci ba nga xam ne Serigne Mamor ànd na ak Serigne Abdou Lahat mii ñëw foofee ca barab boobee jox leen ndigal ci ngeen ànd ak noonu ci liggéey bi boobu ba léegi delluwu leen ci ginnaaw teggiwu leen seen tànk ci liggéey bi waxtu wu ne rek fa ñu toll ak yeen la nga xamne ne yité daayira bi bu ñu ko waxé nopp ngeena am soxla ci lenn fi ak loola agul da ngeen koy dëgmal rek fàcc ci seen jom góorgóorlu ci da loola nak yaq dara ci liggéey bi ngeen di liggéeyal Serigne Touba ak la nga xamne moy la ngeen lo won seen digënté ak Serigne Touba ta daan ko def kon ni nga waxé légui léegi rek mooy tollu àllarba ngeen ko jappé bu jëm si ci juma ji loolu nak am njàngale moo xam ne ñun ñëpp war nañ ceeb delluwaat bàyyiwaat ko xel bu baax a baax a baax a baax liggéeyu Sëriñ Tuubaa yaatu na lool waaye fenn fu nekk e, kenn ku nekk ci noonu war naa fexe ba fenn fu nekk daraam dugg fa boo ëllëgee bu loolay seere ci kanamu Sëriñ Tuubaa seere waale ko te yaakaar naa seere yee seere ci kanamu Sëriñ Tuubaa Sëriñ Tuubaa di ko nangu nag seen ëpp ci jumaay Tuubaa ji nga xam ne ndigalam la woon mu digle woon ko jiitu woon ca moom jiitaloon ca ak njabootam ñi di ko liggéey ba nekk ni te liggéey bi itam kere bako ko Fall di jébbale la waxon rek seen yaxub jumaa ngi nonu ba famu kon ba famu nak moy lo loo xam fenn waxtu wu nek dafa wara a ak jamono di dox la ca war lepp di am la ca am nak la ca war am nak ay nit koy amal nit ñoo ñu koy amal itam nañu bayyi xel ci ne moom digelul la sëriñ bi digle won ba doone pakku pàkkub kese ñuy wër ay xeer di wër ay jumtu di di gas ab raay ba Tuubaa di ca def na loolee doone won farata ak na loolee doone woon ndigal ci taalibe yëpp itam li koy say taxawee ba noppi itam la koy saytu noonu la doone ndigal noonu it la doone farata te ñëpp maasa ngeen xam ndax ku ci nekk ci yéen am nga kër xam nga ne taxawal kër jafe na lool waaye li muy jafe-jafe nag saytu ko ak gën a jafe ndax taxawal ga moom am na fu muy tàmbalee mooy ci fondation lay tàmbalee ci jeexilu fi jeexitalu finition waaye saytu ba nag bis ba jeexitalu finition tàmbalee lay tàmbalee ba ba ba ba taxaw ba di màggat wala ba ba nga koy war a toj di ko toj kon loolu amul fu mu yem xam ngeen xam loolu nag ba tax ngeen ni fas seen jom ci luy sàmm tabax bii nga xam ne Serigne Touba boo ko tabaxoon te waxoon ci lam ci waxoon wax fir li man banaw binaaha rafia wax fir li man amarahum bihi jamia waaye nag wali jamia man aanahum ala binaiha alladi bi fadlika atala loolu mooy wane ne wali jamia man aanahum ala binaiha alladi bi fadlika atala googu mooy wane ne liggéey boobu am na fu mu tàmbalee waaye amul fu mu ñëm fii ak tabax baa ngi fi rek la ko war a saytu dañ caa war a góorgóorlu bu baax a baax ngir mu mel na nga xam ne noonu la ko sëriñ bëgge kon nag su ngeen ci jëfee jëf ju toll nii tàmbalee woon ko ca ni ko sëriñ Abdou Lahad waxee ba ngeen yëgee rek ndigal la te boobaak léegi xëy na sëriñ bi sax waxtu wu ne mu jaar fi waaye xam na ne seen pësteef ak na ngeen ci dëggoo woon keroog ba fi leen ko waxee ba tey delloo leen delloo gi leen ci ginnaaw loolu nag kon sëriñ Afi nee na mi ngi koy seere bu baax di leen ci sant di leen ci gërëm di leen xamal ne liggéey bii ngeen jébale tey nag parce que nañ leen ko defal ci service sub Serigne Touba lépp lu ñu fiy def liggéeyub Serigne Touba lay doon ni ñu ko waxee léegi wutee si ci alal wutee si ci dërëm fayuñ ci kenn defuñ ci lenn lu gën itam liggéeyub Serigne Touba te fa suñ ko ci yéenee def nga xam ne mboolem jumtukaay bu mas a jóg ngir jumaa ji liggéeyalul lenn lu dul Serigne Touba ci jumaa ji li seen machine bi na ngeen seere ne parce que naa yéenee ne bokk ci jumtukaay yooyu nga xam ne moom la ñuy liggéeyal Serigne Touba ci jumaa ji ñi ngi ñaan nak ci barkeb Serigne Touba bi tax ngeen di def képp ku ci ab dërëmam dem yalla na doon sa séré yowul xiyam ci kanam Serigne Touba képp ku ci xalaatam bu rafet dem yalla na doon sa séré ëlëk ci kanam Serigne Touba képp ku ci japp ak num ci mëna jappé itam ñaan gogu na nga duggaale ci biir ñu yéssal nak sunu ciant ci Serigne Basirou mbacké mom Cheikh abdou Khadir ndax taxaw na ci taxawaay bu rafet ci ndigalu Serigne bi ndax eh, niko ko Serigne bi rek moy ay tankam di ay bëtam di loxom tax na nag lépp lu ñor sëñ bi rek daf koy ñor liggéey jumaa ji nag ni mu ñore sëriñ bi noonu la ko ñore moo tax moom itam lépp ni nga ko waxee léegi lépp loo xam ne daayira bi mi ngi ciy jëngu rawatina ci lu jëm ci luy euh, sellal liggéey bi dana ci def euh, ay pexeem def ci alalam def ci ay xalaatam loolu moo tax mu taxawal barab bii ànd kook noonu itam ba nekk ni ñu ngi leen jotli ay cantam xëy na moo fi waroon a teewal boppam jotli ko waaye sëriñ fi nee na mi ngi leen jot wale ak cantam di leen jotliwaale ay ngërëmam di leen jotliwaale ay ñaanam tey di leen xamal ne rafetlu na liggéey bi lool te mi ngi koy ànd kon nag lépp lu euh, manqué ci wax ji na ngeen xam ne sama tele wax la waaye sëriñ Afi moom li mu bëggoon mooy wax ji jot te rafet te mat lu ci manqué woon man sama manqué te bokk waaye li waroon a mat lépp moom wax na ko ñu ngi jégalu ñëpp di sant ñëpp di ba gërëm ñëpp yàlla nañ fi teewaat yeneen liggéey yoo xam ne dañ ko liggéeyal Serigne Touba te nag Serigne Touba nangu ko wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu